asalaamaaleykum man Ousmane Ba Goto maa dellu si waat pour ñu yeggali waxtaan bi waxtaan bi nag du yàgg trop mais je tenais à wax ci xam nga Lamine ñu ngi ko tëj depuis plus de deux ans France euh, pour affaire corruption ci mbiru atletu Russie xam nga ñun ñëpp xam nañ ni Lamin, Jag, patriote la def na preuve am kenn dootu ko présenté koo xamante ni jamonoy Senghor ba léegi mu ngi participer ci développement wu Sénégal à sa façon tey ñu bari dañ naan li ko dal baax na ci moom parce que moom moo doon daaneel nguuru Ablaye Wade waaye nguuru Ablaye Wade kan moo wax ma kan rek ban sénégalais rek à part ko jege trop ban sénégalais rek moo xeexul Ablaye Wade pour mu jóge fi ñun ñëpp xeex nañ Ablaye Wade pour mu jóge fi lan moo tax ñu xeex Ablaye Wade pour mu jóge fi 2012 parce que ni mu doon gérer dëkk bi ci dernière trois ans yooyu noonu neexul woon la majorité des sénégalais ni ay njooñam doon gérer dëkk bi neexul woon sénégalais yi injustice bi amoon Sénégal ci nguuru ci dernier trois ans nguuru Ablaye Wade neexul woon sénégalais discrimination bi fa amoon neexul woon sénégalais corruption bi fa amoon neexul woon la majorité de sénégalais bew bi amoon ci ministre mi ak ñi ko jege ay ñoom Lamine Faye liñ fi def ay ñoom Farba Senghor liñ fi def neexul woon sénégalais ni mu bëggoon euh, changer constitution bi pour mën a toogaat neexul woon sénégalais doomam bi mu bëggoon jiital pour mu remplacer ko neexul woon sénégalais loolu moo tax sénégalais yépp booloo jóg pour xeex Abdoulaye Wade mu dem Abdoulaye Wade sénégalais yi bëgg nañ ko ci seen xol mais ni mu doon gérer mbir yi ñëpp ñu jóg xeex ko pour mu jóge bi ñu pour xeex ko am na ñoo xamante ni dañoo wàcc sur le terrain mooy sama classe gu ñàkk solo gu kenn xamul nga xam ay citoyen simple lañ dañoo wàcc sur le terrain ñi nga xamante ni am nañ ay moyens ñoom ñëw financer mouvement yi ak yenn partie politique yi te loolu Lamine Diack ci la bokk mu jox xaalis bu bëri Macky Sall un million cinq cent mille un million de dollars un million cinq cent mille de dollars loolu ça fait presque un milliard CFA mu jox ko Macky Sall pour mu mëne campagne loolu Lamine jaag du Macky Sall rek la ko defal defal na ko ñu bari Sénégal ñu bari am alal Lamine Diack moo tax ñu am alal politiciens yu bari Lamine jaag moo leen doon dundal di leen financer man ay preuve leer nañ laa ci am léegi nag tey ñu nekk di seetaan Lamine Diack dafa bat te Macky Sall ci la bokk parce que moom Lamine Diack ki ko gën a dugal sax Sarkozy la parce que Sarkozy benn instant dafa am problème ak Ablaye Wade mu bëgg Ablaye Wade jóge fi complètement donc kooku moo gën ruux Lamine Diack pour mu jële fi Ablaye Wade effectivement il a réussi jële fi Ablaye Wade parce que nit ñi amoon nañ volonté mais amuñu woon moyen te Lamine Diack moom mooy yooyu noonu lépp ci amuuram rek pour Sénégal donc tey je pense que Macky Sall dafa seetaan Lamine Diack parce que français français amuñu droit téye ko foofu en France tu vois pourquoi parce que li ñu accuser Lamine Diack accuser nañ ko Michel Platini te Michel Platini mu ngi vaquer ses affaires lu ko gën a garaaw accuser nañ ko Blatter <coughs> mooy ancien président wu FIFA mu ngi Suisse di vivre tranquille kenn laalu ko am na ay ministre français ak ay ancien ministre français yu ñu yu ñu accusé ay blanchiment d'argent ak ay corruption ah ak ay fuite de de de de de de de capitaux yi denc ci ay paradis fiscaux nous on a les documents ñooñu kenn arrêté wu leen kenn emprisonné wu leen tu comprends amul benn dëkk bu am fulla ci kaw suuf buy bàyyi ñuy troxal sa doom surtout sa doom boo xamante du n'importe quel doom tey trafiquant de drogue yi ñu arrêté Sénégal ñoo xamante ni ay tonu drogue lañ dugal Sénégal ba boo yu bëri jot ca drogue boobu di ko utiliser ba moo leen dofloo fu mu toll nii nekk ci ay appartement di def di tourner ay film no di ko filmer di ko partage sans aucun gêne ça veut que ñooñu dañ cee am pas de responsabilité mais suñu gouvernants yi aussi am nañ ci part bu comprenez tey ñooñu bi ñu leen arrêté seen gouvernement ñoo laaj pour ñu libérer leen gouvernement Sénégal da leen ñu dem seen yoon dëgg du dëgg tey militaire bi nga xamante ni moom ak ay copain am ñoo jàpp Omar Watt dooru ko ba gaañ ko complètement ba yàq bopp bi cerveau bi mu toll ne yàqu na complètement tey ñooñu seen procès ubbi na te ils sont pas Sénégal gouvernement di Sénégal libéré na leen ñibbi nañ dem nañ seen yoon waa lan moo tax on a un gouvernement bu ñàkk fulla boo xamante ni tey mënoon na échanger Lamine Diack ak militaire yooyu nga xamante ni dañoo violer la il est temps ñu respecté ñu mais loolu suñu gouvernement rek moo ko mën a def mais man damaa fàtte sax ni amuñu gouvernement amuñu gouvernement quoi amuñu gouvernement benn mbootaay la am ay groupe de copains yoo xam ne ñoo fi nekk di def lu leen neex ñoom ñépp ay mbaam lañ xoolal le cas de de de la fi Rassel Rassel d'après samay investigation c'est vrai que elle n'est pas clean à cent pour cent mais loolu yëpp ñàkk expérience moo ko ci dugal elle a eu un ami un petit ami boo xam ne il est pas responsable bëgg àdduna bëgg lu yomb naar comme moom moo ko dugal ci ay problème yu bari vous comprenez tey tamit waa Batiplus jël kees bu am trente 38 milliards trente huit milliards kees bu am trent huit milliards nga dénk ko koo xam ne amul sa vingt deux ans ok après ñu fay puiser de l'argent dafay jël xaalis xaalis bi bu koy jël après ñu ne femme bi bu mu am trace na effacer trace yëpp donc femme bi aussi ay quelques membres famem ak ex copain am dugal ko ci ay affaire ba moom it mu ne comme ñi ñu ngi ciy jële amul trace peut-être mu am lu mu ci laal quoi parce que moom ci PV devant la la gendarmerie devant les enquêteurs de la gendarmerie accepté na ni am na lu mu laa ok donc tey ñun di kaas pour ñu libérer ko effectivement dañ koo war a libérer xam nga moo tax ñu war ko libérer parce que moom tey permettre na gendarmerie ba ñu gis ni ah parce que li mu leen wax ak document yu mu leen won moom moo permettre gendarmerie ak piste mu leen jox moo permettre gendarmerie ba gendarmerie gis ni entreprise Bati Plus dañuy blanchir de l'argent ok man am na benn booy boo xamante ni contacté na ma quoi du booy sa mag la contacté na ma jox na ma ay document ci à propos ci entreprise boobu noonu parce que dafaa def stage wax na ma ci directeur yëpp jox na ma tur yëpp comprendre ba pare Euh, wax na ma ci affaire wu femme bi aussi quoi nee na ma c'est une fille extraordinaire te loolu ñëpp a ko seede mais ñàkk expérience am moo ko dugal ci situation bi ok mais man ce que man je peux pas comprendre et ce que je peux pas accepter mooy tey femme bi fexe na ba gendarmerie gis ni naar yi dañuy blanchir de l'argent dañuy jël xaalis di ko financer ay organismes aussi xaalis boobu noonu ñuy liggéey fayu ñu ci impôt xaalis boobu noonu ñuy rawale di ko yóbbu ci ay yeneen dëkk en ah, sans loolu tey rek condamné na directeur u Batiplus ak ñépp ñu impliqué wu ci cas boobu tey procureur de la République ah inculpé euh, Samra ak ñeneen ñi des ñëpp ak ñoom Abbas ak ñoom ñëpp ba pare ñu war leen arrêté arrêté wuñ la sous contrôle judiciaire lañ ko mujjee teg te loolu il fallait ñun ñëpp ñu yëngal pour que euh, euh, juge bi mën ko samba samba samba samba samba juge samba samba dof boobu noonu samba sàll mën ko mettre mettre ci ci ci ci ci situation boobu noonu bu comprenez léegi daal ñëpp ñi ci impliqué wu nañ leen arrêté wala ñëpp nañ leen libéré man foofu lay wax te d'après mes investigations Bati Plus ñi ko moom ñi koy diriger pratiquement dañuy jox magistrat yu bëri matériel magistrat yu bëri j'ai la liste magistrat yu bëri yoo xamante ni Bati Plus moo leen jox matériel gratuit xam nga naar yi ak yenn sénégalais imbéciles yi ce qu'ils mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ci drogue nekk ci ay affaires yoo xam du yoon ñi nga xam dañuy blanchir argent ñi nga xam dañuy rawale ay capitaux di ko yóbbu ci ay yeneen pays excusez ñoom dañuy dem ñi nga xamante ni ñoo doon war a bloqué nga xam ñoo doon war a tëj ñoo doon war a emprisonné ñi nga xam ñoo war a dugg seen affaire mu yenn grade yi dans dans la gendarmerie ou ou dans la police ok ak yenn magistrat yi ñooñu la ñuy corrompre ba nga xam dossier bu ñëw devant eux dañ koy dañuy gëmm seen bat bàyyi mu jàll loolu dafa war a jeex ñi yàq Sénégal magistrat ci la bokk ci lañ bokk te il faut sénégalais xam yan magistrat c'est normal dañ ko war xam Sénégal mu ngi yàqu complètement te ñu si bëri ñu war a wax waxuñu ñaata marabu lañ fi jox ay terrain ñu jël terrain yi jaay ko wala tabax ko wala maye ko wala dëkk ceeg yooyu pendant sa temps taalibe bi koy jox addiya sax amul lu mu lekk wala amul dàll bu baax tey boo ci waxee gars yi attaque la fekk dëgg la quoi yow ki ngay jox moo la ëpp alal mille fois ba pare loo yor jox ko ba pare après ngay ñëw di leb quoi. pour lan du ma la labal wala nga ñëw ñaan dimbal du ma la dimbali demal ci mara bu boobu mu dimbali la parce que mën na laa dimbali vraiment yeewu dafa jot wax nañ ba son te boo waxee ñu ne dangaa dangaa bañ tarexa bi dangaa bañ tarexa bi mais man mën naa wax ci tarexa yëpp parce que bokkuma ci benn tarexa te pourtant ci famille bi ma bokk ngandi maami famille tarexa la mais gëwuma leen sax ñoom Vous comprenez Je pense que aussi, euh, il est temps, ñi nga xamante ni tamit vraiment Sénégal soxal na leen ñu jóg def dara jóg wax jóg def dara quoi affaire coronavirus bi ñun ñëpp xam nañ corona sa ça sa am na ok mais li ci suñu gouvernement yi wax. ay fen la lu ci bëri quatre-vingt-dix pour cent la ñu wax ci affaire virus bi ay neefere la du dëgg parce que tey li ko prouvé mooy rassemblement yi mujjee am États-Unis yi mujjee am Europe yi mujjee am Canada partout pratiquement testé wuñ ci kenn ku positif kon ana corona fu mu jaar fan la corona dugg dafa disparaître ni quoi ni rapidement vite fait moo tax ma allez vaquer vos affaires dam leen ngeen lijjanti seen bopp parce que gouvernement boo xam ne joxuloo nga lekk joxuloo nga naan bu la teree dem dox rek yaa ñàkk fu la dam leen ngeen doxi seen ndox mais en même temps aussi ngeen moytu quoi comprendre ngeen man foofu lay waxee euh, dama je tenais juste pour def benn live bu gàttu wax ci affaire euh, euh, lamin jaag bi il est temps gouvernement Sénégal impose loolu gouvernement de de française ok parce que dañ koo war a libérer Lamine Diack mag la bu deewee ci loxo français yi nii Macky Sall sera responsable justice bu ñàkk fula la ñu am c'est pas normal merci beaucoup maa ngi préparé benn live bu mag boo xam ne on va tout dire après lu xew-xew on s'en fout jaa ngeen